إله من تطمعي إلا أهل محمد بن عبد ويوم صار حج أرضانهم لا أو تكون أو صبر أو رعان وصرنا دون يا أيها الناس إني تقوى أن ربكم برم سلام إني رغم يمسن برم لا تقوى وتقرأ البر يلا موائفين لم ترى لم تجد wattandiku lépp lu ñu xaraamal a def lenn lu war def yàlla nee nañ def loolu de yàlla sant na leen lu mu leen digal na ngeen ko def lu mu leen tere na ngeen ko bàyyi ñu def lu tax inna zalzalata inna zalzalata saa'ati naka yëngatu bés penc naka yëngatu bés penc te ñun daf leen wax ak yu bëri yaa ngi màgg lu tax ñu di leen digal ragal te yàlla dina ñëw te yëngatoom yëngatu ji ba yële rek li yàlla wax ne màgg na màggaayam dana jéggi dara rek des te dina faa dina gaa rënd rek ñu des tey ci sa yëngal mu yaa ji maa ngi ci loo yëngal ñu ngi ci des saa lu mu ci nam mooy te itam yàlla wala mooy wali na beekal ba. wala mooy way na ku ci dara àddina li ci mën a am daal ak rëng-rëng buur rëng la boo xam ne daal dana ci seen bi yëngu ñooñu kanam moom bés bi ci àddina ba nga xam ne jant baa ngi fenk bayeekoo ci sow bi te amul jant leer bu keroog yëpp di yëngu dañuy ci dëkk ba nga xam ne rëng-rëng bi day ñàkk bi ñu leen jaral lëmm màggal suuf si waxoon naa la ni ci kaw nit ki lañ ko teg ay bés ñoom dañ ko wéri junee bés ko ji ba sam bañ yëngatu bu keroogee mu wàcc ko yem suuf di ñeen ci kaw géej gi ni daarak loo coo ci di kuréel yi suuf si di yëngatu jant ba amul genn leer kooku mooy ñi nga xam ne ñu njëkk yëre ñu wal gis ko bi ñëpp a jeexandoo mu walaat ko gannaaw ba ñëpp a dekki ñu xoolee ñu jëm sa itam yàlla rek ñëpp teew fi kanam yàlla nag ñu doon jaamu te ñu doon jaamu yàqal rek benn côté bu ne dana wax ak yàlla te kenn du dox seen diggante kenn du la leen laxatoo ku nekk dana taxaw fi kanam yàlla lay. tey jii daal dox nañ diggante de bu fàttali ci bés boobu da nga ragal yàlla de yow ba waa bés ba moom tey jëm yàlla rafetlu dana jëlem pour lu mboq gannaaw fi ñu jëpp aji xam nga ab mu am jëloon de ba foog dama jëlee dama ci biir ci lu saa si am ngeen jëf laa am jëmu dem xam ne bi dana fàttali muy nàmpale jigéen ju ëmb dana xalaat ba si lam ëmboon waaw te du ko di màggal si te bés ba ngeen jaaw loolu mor jaaw mooy jigéen ju nàmpal bis mu faayal soo xamee ne jigéen rek la jagoo soxla wu kaay saani di ci xaar di ji ji daa ji mbala kenn du ko def saxaar xaar mu ji ji daa ji njëmu kenn du ko def saxaar mu jox a ci daal di naan a kenn du jëlee saa ndax saa yu saa yi ràññale góor ak jigéen rek lay jëriñ baat soo xamee ne nag ñett bi ci góor rek ci jigéen rek la jagoo soo soxlawoo saa yu saa yi kon nag saa yu saa yi bii ci def saa bii ci def bu saa yu saa yi mu joxoon mooy jigéen bi nampal mu joxaat nag mooy saa muy nampal waxtu woowu nampal jigéen waxtu wala xam te yéen yéen yéen bu dul bés boobu dana tax mu fàttali la maanaam peut être yéen jigéen dana wëccu seen mbool nit yi daa ngay nit matal bés boobu de mais nag loolu moo tax de ñu bëri ci ci kër yi wax ne comme que boobu ñuy wax ci àdduna lay doon maanaam la tëmb ak nampal ci àdduna rek la ñu ne déedéet ndax yàlla buy dekkal jaam yi su nekk nam te woon la koy dekkale. ñu ñu doon tudd mu ngi yomb ñu def ci dafay yomb ñu def ci dafay yomb mu ngay nombal ñu def ci dafay nombal waaw nag ñu ñëw leen sëñ ko yàlla nag moom jigéen te mu ngi yomboon wala mu ngi doon nombal ñu tàng jël na tàng parce que lan doon nombal ñu tàng jël na wax mu ngi nag mu ngi yomboon wa tara ji daal naa ko ñëpp kaara ñu ngi mën di ñu tàng moom ñoom rajo bi lay naan naan leen. te gis nga jëm yàlla ñëpp dañoo gis ko ne nit ku naan bàyyi la woon bi te teg naa ko te ñu jàngee ci mag jëm moo leen nandal waaw ñoom ñëpp ñu ko ko gën a xel de sàngara soo ko naanee ba man bi da lay fàttalee fàttal ñu jàngee jooju itam dana ñu ci doomu aadama ñu ko fàttali naan seen xel ba koo ji bu mu ne dafa man bi te man bu mu de yonent sallallahu alayhi wa sallam ñu jàng la ay ci ci saxaaba yi ne leen saxaaba yi xam ngeen kañ la mooy ba nga xamee ne yàlla na ne aadama aadama ne wuyu naa la wuyu naa la yow sama borom mu ne ko génneel li nga ba farfara ci sa tool bi su ne ko junne bu nekk jox ma ci juróom-ñeent téeméer ak juróom-ñeent ak juróom-ñeent ñuy dem safara junne bu nekk na ko yamal yàlla wala xam ne yàlla waxee loolu aadama sa doomu aadama yëpp a ngi taxaw boo ko defee su nekk su nekk ndax nag ñu dafa mandi te mandiwul ñu ngi doon mos wala déedéet. waaw ba yëpp dañoo baax na jooy bu bëtt seen bët yi toog kat te daaw ba ñu la waroon ba bëtt kat seen dugub ba nga toog ku nekk nga boobu waaw di jooy rek kay de tey ñun ci jëm su fekkee ji mu bëri dana gën a war jàll. waaw kooku seen kan nga war a doon yéen a ngi toog nekk ak yéen yaa ngi ji dañuy yoo xam ne nekk ak yéen. wax safara bu génne la yaa jooju ak maa jooju ndax yàlla ci yéen juróom-ñeent téeméeri juróom-ñeent juróom-ñeent yaa jooju ak maa jooju yéen ndax ñoom nag yéen sama xeer di ci biir biir dama dama dama dama jël dina ko waaw mu ne su ma nekkee genn wàll ñu dama dama nag dina ko comme ñu jël. loolu mbay taxul yoonam su la woon yéen a jàng alxuraan moom mu indi téere yi xabaar yi ñu mbokk sa ñu naa indi leen xabaar bu mel ni Muhammad yéen di saaroo yi sama xabaar yi sax dana rafet xabaar yi Muhammad buur wa mina naasi ak nekk la jënde nit man jaalu ko dana mu daggee si laay ci alal xayre ak nim ci xam-xam ñu daggee am benn xam-xam loolu wañ na bàyyi ko amuloo xam-xam moom la bay ñu naan malaaka yi doom yàlla lañ ndax malaaka yi ay jigéen lañ te gis ñu ko war a defee bàyyi lu may yàlla alxuraan ne nari maamu jëkk yële yi fekk ñu naa amul suñ dee rek dañuy soppeeku suuf waaye tamit tamit soppi ku lëkk bàyyi yëpp saytaane maa ngi ñu si yaa ñu jëkk yële de te waaw daangeekat laajteem googu du ca topp lu mooy saytaane su ca teel la ci biir kutiba ko farat alayhim xatteef na alayhi waxal ko annahu naka moom man tawallaahu ko topp na mu ko fa annahu naka moom ñu dundoo mu réeral ko waaye ji itam ko jaa sabi sayer ji ci mu réeral sayer rek ña ngay topp iblis bi nga xam ne yàlla ku ko topp yaa moom ak yéen am jëm safara yaa ayyuhan Makka in kuntum dem nekk ngeen jëlee yéen picc ñu ne baasi ci gàcce te naa la dama xaw maa comme duñu noonu leen xuraan bi nag ñu ko wér. daal di indi nag tegtali gàcce téefari lañ ne gàcce amul gannaaw bu ñu ba nekk yaxu fu moom kenn mënatu ko dekkal ba mu nekk ñu ciy dindi yàlla ne yéen ñu ci dekk maa ngi leen bind ngeen ko ci suuf de. ndax aadamaay seen baay ci suuf lañ ko jëlee ci suuf rek la yàlla ci bëlu ne ko nekkal di aadama mu daal di nekk ci doomu aadama ñu di mbindeef te aadama moomu yéen ñëpp moo jur ndax man loolu mën da lekkal ku ba soppeeku suuf di nga xamee ne aadama ci suuf ko jëlee nag kon nee na ñu ñëpp ci suuf lañ jëlee wala nit ku nekk itam ci la ko yàlla jëlee ndax doomu aadama yi ci def ñu ngi bàyyi ko ci ndoxam maniyu maniyu góor ga ak maniyu jigéen ja maniyu ñu ko ci hang ba hang bi ñu ngi bàyyi ko ci ñam wa ñam waa ngi ko yàlla gàncax ga gàncax ga ngi ko ci suuf rek kon yéen ñëpp suufay seen defar ci mën a aadama mu bàyyi ko ci ndoxam maniyu ji ñu ci xasee ñëw léegi te bind ko mu di wala mu di jigéen kooku fekkal yàqal bu nu yàqal ko rek moom it ñu fekk ñu topp ñu bind maniyu Adama moom ci suuf si lañ ko bindoon yéen nag maniyu rek ndoxam maniyu xam nga ndox la. ndox mu mu xeebu saw. mu xam naa la xatin topp ci kër gi lumb ndox moomu soo xamee ne waxtaan nañ ko jëlee ba yem sax ak kii sa fekk yàlla fa sonn jàll yi lënd ngeen dafay mujj waaye soppee ko aw lumb de lumb deret lumb xam nga ne wute nag ndox de de. loxo man yi nam meloon léegi mu lumb deret soo min mu xasin ci topp mu tudd ci soo ga lumb woo nekk doole ci yàpp mu xam nga xas na wuñ mu bindam waxee mu xam nga xasin ak du ar wudu mu wuñ matal bindam de binde ñu ne ñaar lañ ñu dañ leen bind bind bu mat ñu ñu bind leen bind bu wàññee ko rek moo tax ñu tudd ñuy gàtt ñi suuf yi ñuy rey wala mu xalaqatin luñ bind waxaare mu xalaqatin ak lu mu luñ bind luñ bind li mooy ji bi nga xam ne mat na doom ja soog a juddu bi nga xam ne lu luñ bind mooy ji bi nga xam ne tey suuf ma sa xam ne lébu ma matul de suñu béy nañu nañu bidal la comme ñu àndal suñu mata kattan yàlla doomu aadama soxin woowu ngir wan leen ne moom dara nga tëru ko rek. te mën a jël loxo maniw sotti ko lumb danaa ko mu sotti ko mu bind ko muy doomu aadama yi ko ci jiitam layam mu mujj bi ñu ci kafañ kafañ yi dem yoonam kooku mën naa ku dee rek kon mu xëru dana mu saxal nag te dafa am ci room maana saaw dana soob ilaa jëriñ li dana saxal ci room ak jigéen lu ko te ci waxtu yoo nga xam ne moom la ko tuddal mooy waxtu génnam de jigéen ju nekk ruuxam yàlla na ko waxtu malaaka malaaka moom masaa yi ne ma ngay ñaan yaa rabbi nutfatan yaa rabbi nutfatan yàlla may ma toqante yàlla may ma toqante yàlla bëggee nangu ñaanam waroo ba am lu may bu bëggee nangu ñaanam malaaka ma mu daldi rafetal jigéen ji te bëti góor ga rafetal góor ga te bëti jigéen ji ñu daal di jege ñeent rek suñ booloo xëyee te wàcce maniyu malaaka ma teye maniyu wee mais yàlla ndax dañ ci bindu mbindeef am doo ci bindu mbindeef yéen a naa ci bindu mbindeef waaw mu ne ci bindu mbindeef su fekkee ne bu ma ci bindu mbindeef wàcc ko rek moom maniyu dafay génn roobu nga du ko woon wala mu ne ko danaa ci bindu mbindeef mu ne ko danaa ci bindu mbindeef nag mu teye ko ne ko dafay defe am dafay tasaare dafay bëri wërsëg am dafay ñëw wërsëg dafay gudd fan am dafay gàtt fan lépp yàlla xamal ko ko mu seet ci lawin ma foof na fanam day ne wërsëgam day waaw lépp nag mu su ko defee mu dal di ko booleel waaw nga xam man ma ak fa nga fan la bu dee fu ñu koy suul ñu sax ci ko suuf dafa nga xam ne fa lañu koy roobee la booleel ndoxam man ñu mooma te leen ko ci itam day def su ko defee rek jigéen ca soog a jënd weer soog a jënd weer rek su fekkee ni doom jooju fa soxna mat mu dund ba ci juróom benn weer ya mu wasin ko wala ba ci juróom ñeenti weer wala ba ci ñeneen at dañ jël day dañ jël dayam demu mooy juróom benn weer jigéen soo amee juróom benn weer mën naa am wasin te doom ja baax juróom ñaar noonu juróom ñett juróom ñeneen mooy li gën a bari mën naa wéy nag ba ci ñeenti at mooy dayam njëmut wala juróomi at juróomi at njëmut dana ko am ci dem dayam sama juddu bu fekkee ni am na nag mën ko ji kum topp nu gëne leen gis leen mu leen di ndaw gannaaw bu ji dem njëmut ma àggee nag ñu ñu wasin ko moom doom jële muy gone bu ndaw maa ngi topp ko topp nu dundal leen ba ngeen jot ak dëkkum dëkk seen moom man ñu moom ñu doon waxtaane gannaaw la yàlla di ko jox kattan muy màcc di màcc di màcc di màcc daa am ñett fukki at nag yoo xam baane wala ma am ñaar fukki at rek min ku ma ajina kala ci yéen seen man ko faa ka def na faat ko min ku ma ajina kala ci yéen ko ke ma def la ko jaar te ñoom ba ci ba ci gën ka tawa di dundale am na ñoo xam ne danañ dee ci ndaw am ñoo xam ne nag dañ dee ci seen waxtu kattan am na ñoo xam ne danañ dund baax di dund lu gën a doy màggal ba koo kenn naa waaw ñu ko la dee ci kaalama nit ku mu xam ci suñ baalee nañ ca gannaaw xam-xam sa yam dara de dund bu kon mooy mu dund ba naag nag nga xam ne ndaw xamam yëpp dootu ko xam ci mën a jël ndoxam maniru def ko muy ab niir niir boobu di màgg day ko ne di màgg bay waxambaane di màgg bay mbayam rus gannaaw ga mu dellu xaar di botteeku di botteeku ba nekk màggat mu kootoor naat dootu xam dara yàlla soog koo rey nga mën a def loolu jàkkal ko dee fafu ko def loolu la yàlla yi wane toujours mandargam def ci ñu ko fi doomu aadama noonu la koy delluwaat gannaaw mu gannaaw mu jeexee di def doomu aadama nag yàlla wane na ci kattanam wane ba xam ne ku gëmul rek da ngaa da ngaa ma xale wala nga tëb wala yàlla na ma ci yow te xeetu rek rek waane ñu doom ci soxla diggante ñaari waa jitam ñaari waa jitam sax jëluñ ko dañ ci dugg ci ndaw. amul dara mënul dara yàlla di ko yar wala yi mag dara wala yi ko yëguñ dara ba tey di waxambaane ba tey di mbañam ruus ba tey mag ñëw doole doole jama amoon yëpp xamu kañ la gote ko ba dem tawaram ba ñuuloon yëpp ñu jëlee xam ngeen ne xamuñ loolu mën naa dekkal ku dee benn tegtal la góob ba taraa ci saa yi lor la suuf xaaral yoo xam muy aji woowu naka noonu ci màndargam tegtal yi tegtal la ne yàlla mën naa dekkal ku dee suuf si da nga ko gis mu wow koŋŋ ni mu ñetti noonu. yaa am sax naa ne wàcce na noonu la yaa ci moom am naa ab taw ñu def ko mu yëngatu war a ba tam forti waa am ba tam saxal min kulli taw bi yëpp a teel ba yëngu nga gis suuf si wow koŋŋ doo ko lu may asamaan si suñu rek daal ñu ne wis si tooy xat balaa nga am ñetti fan nga gis suuf si xob bu nekk gàncax gi nga boobu ñu màgg bee rafet ñu def lool gannaaw ga mu dellu woowaat daal di fàttali foofu mel ni mu la ñu si doon. yàlla dina ko yàlla. woo ma wala te moom mooy aji dëggu de mooy aji sax waaw loolu nag moom it dana ko dundal moom daa lay dee. soo gisee yàlla bi taw suuf soo si mujj tooy génne gàncax gannaaw la mu dellu woowaat kooku yàlla daf leen di wan ne mën naa dekkal ku dee rek nga mën a tooyal suuf ba génne ci gàncax gannaaw bu mu kooku mën naa dekkal ku dee rek waaw loolu nag moom xabirum te yàlla mën na lépp def saa dañoo taxawoo toujours ñu yem ci liggéeyam ñu nu may fa xamal leen wéetal yàlla ak xam ak yàlla rek waa ak alaaka wala xam ne sax na ci xol ñooy gëm ña dañ ko doon yaa xëy waa na saa baax na ca bés tey ci àddiretul ngeen xam ne yàlla mu mujj indi ceebo dana indi bés tey ci raamu sukkale waa na laa na kay ala yow su na mu dëkkal man ku boole ñu nekk ci bàmmeel yàlla mi dekkal gàncax gi gannaaw bu mu waxoon loolu dekkal ñu nekk ci mbamee rek comme ñoom maanaam si àddina ak wala jaaree lu si laay kooku lu ko wax la wàcc na jaar yi jaar daa tàggee jaar xoolal rek mu ne wala maanaam si àddina ak la ci lenn nit man ñu jaar lu ko dara mu tàggee bi laay ci yàlla dafay jafe ci xam-xam wala aw dem lu jaay dañuy mu ànd ak moom wala ci xale bi jaay dañuy jaay jaay saane ci ismu ak ndam njabam nga abu jahl moom saam ñu ngi dagge ci yàlla saamu xam-xam am téere ren ko booba ñu yàlla may ci ci ko booba ñu mooy lenn yoon ma la xaw ma yàqal tuuru abu jahl moom moo jikkoom noonu laa dëkkee def booba ñu rek mooy lenn ci ci ñu ci lan ci noonu réeram yi ñu am sax ñu daa war ñu yàlla ñu réeram yi dara war na ci moom li mun nga jëlaat si suñ toroxte dana torox ca àddina de rey nañ ko keroog Badar de wala mu ko wala mu mos a yow ma koy amal ci seen jëm yàlla ma ko wala xale si mu ngi doon mos a te terewul bu bàyyi am dara ci seen jëm yàlla dinañ ko dugal safara wax ko de waaye ca soxal ak safara li ma xam dama nit la jiital ko yàlla ak yaare la xasoo rek safara woowu ñu naan kanam sa na nga ba ba woon ci bàkkaar moo ko waral rek loxo la tudd ndax tey gën a béy ci jëli jaa loxo koy def waaye laa naka yàlla day def te laa leen jënd borom ak tooñ yaa ngi ci jaam de yàlla du tooñ benn jaam dañ ko bëgg a jënd bàkkaar de wa mina naasi man ya'budu ala arafin kooku lu ko waral wàcc na ci wàcc na ci lenn yee lenn yaaram dañ daa wax ne waaye nañu seet diine moom ak yëpp seet ba xam lu ñu feeñal ak jébbalu ne jébbalu nañ seet ndax diine ji danañu ci gëm dee suñu jébbaloo bu ci jébbalu sa sa wasin sa wajal jur doom ji jigéen muy wajal saw naaj nit doom ji jigéen sa jabar ji doom ji góor ah dina diine man diine mu dootuma ko bàyyi ñu diine baax a ci man di ci góorgóorlu nag soo wàññeeku jub góor soo mag jub góor sa jabar jub jigéen daanaka jub dina maam ga dafa gaaw ci maam dina dina maa ko ci daal di mucc góor ne ñu naan la ñu ne la ci leneen man yaa bëgg ko dana mu jaamu laa yaa laa laa la ci am na ñoo xam ne dañuy dugg ci dina te te te mu ñëw yaa la ci ci fàtte di seet ba xam ci ñu ci mel ne bay na asaabawo ñoom jot na ko xayrun ak wét nekk yaramam wét na alalam doleeku isma na mu sax bi diine yi way na asaabanu dem jot na ko fitna nam nattu su ko nattu daree nag mu feebar alalam wàññeeku suñ mu soppeeku alawa ji yëfaram parce que perte na mu dund ak yas na wala wala kooku perte na na raxere ñu ne ñu ko jàppe loolu rek ñu ne lañ koy yow jaam la yàlla mooy sa borom nit la ci ci yàlla bu nga nekk su naqaree itam nga nekk ca waaye suy seet dina ñu ndax daf lay ñu la xamlam dafay wàññi sa kooku perte na ay ca yëpp dina ñu ko seetale loolu rek yàlla seetul alal seetutul naro ñu ngi seet rek xëy na jaam ku sa ku sa xëy na sell sa kookaay jaamu yàlla ba nga xam ne moo rëy fa yàlla de moo am fa yàlla bu yeboo amaaral bu yeboo ñàkkaaral koo xam nag ne loolu nekkul ci yow soo amoon ak naa ngi ci jiite nag yàlla faale wala yaay faaral de saa yu tële lee woo ma ko soxla mu mën perte mu munu ko daa ji yàlla moo tax mu jaamu mu doon laay lu jaamu këram maa laa yàq loolu loolu la mu ko su jaamu su jaamu woo maa laa yàq faaw te jëriñ ci mu ko su ko jaamoo tere moom soo ko jaamoo moom du la jëriñ soo moo jaa ko nit di jaamoo njëkk kuy jaamu kay jaamu yàlla mi nga xam soo ko jaamoo mu ja mu jëriñ la soo ko moyee mu kutu sa nit waaye keneen a lu moo jaa lu tax ko jaamu daal ko loolu de woo moo ko waral moo leer ab bàyyi bu ko daal di bokk ci yaakaar ne yàlla dana wàcc yonent bi de lii benn bànneex amu ci teew sa bopp ba dee ca buum nga nga dee ak mer bu fekkee loolu du maye bànneex ñëwet yàlla jox yàlla wàcc yonent bi ba nga am sa bànneex ci moom noonu la mel de bu ko saa di ko kem wasal bu ñu wasal aay anzalnaahu danu wasal ko moom alquran di def ayati mu kawte bayinaati yi gise waano laal naka yàlla yaa ngi dina mu jubal man yi nanu ku mu nama jubalam de nan de dina naka ñaaña aamanu gëm nañu di ñaanoo walla dina ñaaña aadoo yawat nañu yawat di amro wa saabina saabina ya kuréel lañu yi naka diggante yawat ak nasaraan di wax ni faaraat wa nasara ak nasara yi ci ak tubaab yi wal majjoos ak majjoos ak majjoos waa jaamukat xerem yi wala si naa ñaare asra ko bokkaale nañu ak ñu sàkkal yàlla bokkaale inna laa naka yàlla yaxtinu dana fasale bay noonu mu jëkk seen yoonu kaama si jëkk ngëm yàlla de ñoom ñëpp yàlla dana fasale seen diggante ëllëg mooy ñu gëm yàlla mu yóbbu leen aljanna ñu ci def ñëpp màngale ñëpp safara de inna laa naka yàlla te ñu aji xam la moom yi ñu ngi ci les relais te lépp lu mas a def ko ku ne dana ko fay jëfam alam tara ndax xamul am na laa naka yàlla yëpp gis naa si jóor loolu ñaar ko man ci soxlaa ñu nekk jaaraama juróom man ci def de ak ñu nekk gis juróom-ñaar xanaa xamul ne yàlla mboolem mbindeef ñëpp dañ koy si jóotal malaaka yi ak malaaka yi ci suuf yëpp dañuy si jóotal yàlla. ba soog soog jant bi jant bi dafay julloo yàlla wal qamaru weer jant bi ak weer ñoo leen gën a rëy ñoo leen gën a xool waaye ñoom dañuy julloo borom bi wala doomam biddi biddi yëpp dañuy julloo yàlla wala jibaale doj yi doj yi itam dañuy julloo yàlla rek wa sañiroo garab yi garab yëpp dañuy julloo yàlla seen kër yi nga gis waaw muy julloo seen suba yàlla mu wàññeeku di jublu soow waxuñ ne nit ñi kenn yoon yéen yëpp dañuy sujjóotal seen borom kon damaa la boot daaba yi daaba yëpp nag dañuy sujjóotal seen borom waxtu bi noonu la ñu bëri ñoo nit ñi kay xam nañu bëri ñoo xam ne dañuy sujjóotal seen borom du ñëpp de waxtu bi noonu la ñu bëri ci ñoom ak xaw ma naa leen ci moom alaaka bu mu bëri waaye ñu bëri ci ñi nag mu bëri waa nag ñoom de moo ñu bañ a sujjóote gis nga mboolem mbindeef yépp nangu na ñoo si jootal yàlla asamaan ak suuf jant bee weer weer ji ak daabay ak garab yi nit ñi nag am na ñu nangoo ci jotal yàlla mooy ñu gëm yàlla ñu bari ñoom nag tëtt nañ de waaye mbugal mbugalam nga ñu xaar ñoom ñëpp dañ leen mbugal gis nga ñu tëj diine ñoom rek kay wedd yàlla ñoom rek kay mooy yàlla li ngeen di def yëpp nangu nañ li yàlla digal nangu nañ li yàlla digal ñoom ñëpp xamatu nañ ñaar yàlla te ñëpp gëm nañ yàlla mboolem li ngeen yëpp itam gëm nañ yonent xam nañ yonent muy jur gi muy jamaat yi muy bàyyi may ci doomu aadama rek la ñuy gisee ku wér yonent sallallahu alayhi wa sallam naka sama xalifa yàlla gaa yi man bindee yëpp dañuy jaayante moom doo gis suñ ko weddee lu muy ci nit yi nit ñi ci gën a néew ñooy ñu gëm yàlla ñu gën a bari ñëpp dañoo wedd yàlla sabab safara ñu doon tànk jinne bu nekk kenn ci dem aljanna juróom-ñeent téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent ñëpp ay yéefar lañ bon yéefar yi ñoo gën a bëri fuuf jullit yi adduna si juróom-ñaari ay wàll lañ li ñu def li ñu dëkkee ci suuf moo gën a ñoru boox suuf si lañ dëkkee ñoru boox ñu ngi doon li ci gën a bëri ay xeefal lañ ñu néew ci di julli julli yi itam li ci gën a bëri dañoo sos yi daa ñu leen génne ci diine ñu néewaa ci sunna ñun sunna itam ñu néew ci sàllal yonent naxe ñëpp xalaku nañ lu mooy ñu gëm yàlla te xam am xam-xam ñu am xam-xam ñëpp xalaku nañ lu mooy ñee jëfi seen xam-xam ñu jëfi seen xam lu mooy ñee sellal ñaar yàlla te ñooñu ñu néew lañ kon nag ñu gëm yàlla ñoo gën a néew luñ xikmatu ci ñi gëm yàlla gën a néew yàlla wax shaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an su ko neexoon ñëpp gëm waaye loolu loolu neexu ko soogut loolu wala yasaaluna na ci jeneen laaya ne duñ dañ di xuute mukk ñoom binde yi wali zalika xalaqahum ne loolu tax fa mu bind leen loolu nag ndax sedd yàlla sedd mbinde yi dafa amut te su ñëpp bokkoon gëmandoo ñëpp bokk ak yoon bi bon sedd yi dañu ñeemoo te yàlla dogaloon na ci asal ne dafay gënale diggante sedd tax de ñu gëm yàlla ñoo gën a ñu gëm yàlla itam ñu ci sellal ñoo gën a néew luy xikmati ci loolu yàlla dafa bëgg a wone ak doyloom yàlla amul soxla ci bindee amul soxla ci jaamu bu ñu koy jaral ci ñëpp itam bu bon koy du wàññi ci teraanga yàlla ja dara ci ñëpp jubóon ba mel ni yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam koy di yokk ci teraanga yàlla ja moom doy na wali si ay ngileef doy na wali sa seex jaamu kon nag su fekkoon dafay teewoo ñu gëm gën a bëri mu mel ni dafa doy dafa doy lu xam ne sàmm nañu ñu néew rek ñoo ko looloo tax ñu néew yàlla gën a ñu gëm yàlla mu wane teraangay jullit ñi ak seen xoraay lépp boo xamee ne matale na ñëpp mën nañ ko am rek kenn dootu ko fonk lépp balaa ñu ko balaa caa ñaa xëccoo ba tax a da ne ba ñan rek saam yi nga xamee ne ak ñi ñuy néew ñëpp ak ñi ñuy néew doole ñu jullit ci àddina si ñoo gën a néew ñu dul jullit te ñoo gën a néew doole itam waaye ak ñi seen noon yi bari bari bari bari yàlla ngeen wattu ci seen biir te mën a duñ leen dara te mën a duñ leen dara wattu jullit yi ànd ak seen ak bëri yéefar yi lottalul yàlla loolu la yàlla wane moo tax mu jëndeel ñii ñu néew ne ci lu ci biir noonu yi te gis nga ñoo ni mënuñu ngeen tus ragalu ngeen sax kon faayu ngeen loolu moo tax gëm yàlla gën a néew ci nit ñi sax wante wutal nag lam waxoon ne kataba ala nafsi rahmata yonent na yàlla wax na ne sabaqat rahmati ghadabi yàlla na ne yërmandeem jiitu na mbugalam ba yërmande yi nga xam ne yërmande ji moo ëpp ñoom yërmande ñoo gënoon war a bëri lu tax nag kon ji ñu ñu def jinne rek la ñam dañuy ñëw ba naan pour pour ci mbindeefu yàlla yi waaye yaar ak xarafa kursi yoog bay ci maam wala mustawa ak saray bëkki ne ci aljanna yi ci aljanna ak xóoru na yi fuuf adama ak liñ jub kon nag suñ seetee xam ne yërmande yàlla ji moo ëpp fuuf wan yërmaane ji moo fu fuuf waaye ci nit ñi daal moo gën a néew nit ñi taxe laal ñoo gën a néew waaye nag mbindeef ñi taxe ñoo gën a bari mboolem doomu adama yëpp suñ dajee asakay jinne yi rek lañ jinne yëpp comme doomu adama yi suñ dajee asakay malaaka yi ci suuf rek lañ malaaka yi ci suuf ak jinne doomu adama yi asakay malaaka yi ci asamaan yi jëkk la de dana dama koy jeexal asamaan yi muy asakay malaaka yi ci bayti maamuwoon loolu di asakay malaaka yi ci benn lool la ci lool yi xaraf te xaraf am na juróom benn téeméeri junne ci lool kon nag ñu ne yàlla yërëm kay ñoo gën a bari fuuf waaye daal ci doomu aadama moom ñu yërëm ñoo gën a ñaaw waman yi laaw ko texeel na ko yàlla comment loolu yëpp ñaar ko mu mukk naa ñu texeel ku yàlla na ma ci moom texeel yi nag kenn da tax mu texeel dina na ko yàlla yabal dina mu def ma ay saa mu soob te lu ko soob lay def jaam mu texeel ko jaam bu ko mu texeel ko de ah saa ni xas maa ne sos moo fi rabbiim wàcc na jënd dara xalaat ba lool jaatam ñaaral ma ba yonent gàddaay ya Medina ba jaatam ñaaral ma ca daje Quraysh ca Badar ñu xeex xale bi yonent jësa génn xale bi mu woo yonent génn ci ñetti téeméer ak fukk ak ñett Quraysh ñoom ci junne ñetti téeméer ak fukk ak ñett yoo xam ne juróom-ñetti jaasi rek lañu am ci gànnaay ak yaare fas ak juróom benn mbubbi koom di gàtt di jàkkaarloo jinne boo xam ne ñoom ñu nga seen waruwaay yu doyal seen yóbbal bu doyal seen ganaay bañ sabbalee ñooy wayte bi Makka daal di ñëw ne albiraasa noonu lay aram di xeexe kuy sama kam na na jéem a xeex ak man ñu ñëw ne ñu ngi xoo suñu kam yi ñoo xeex ak ñun moor ak moowit doomi Afra yoo xam daan lañu bokk ci Ansaar dal leen dogaloon ne leen ñun ñu ne xeex ak yéen ñu ne fu ngeen bokk ñu ne Ansaar ñu ne kufur wala ay naaw la ngeen de waaye ñun laajuñ leen suñu naaw la yéen ñu laajee suñu doomi baay yéen lañ bëgg bëgg bëgg a daje tey yonent bi dégg ko sallallahu alayhi wa sallam ne wax nañ dëgg ana Ali ibn Abi Talib ibn Abdul Muttalib ana Hamza ibn Abdul Muttalib ana Abu Ubayda ibn Aamir ibn Abdul Muttalib ñu daal di taxaw mu ne leen ñu ñu ngeen ñu war a xam ngeen ko ñu daal di génn dem daje ñàkk ñooñu ñaañu léew bi jëkk xew ci diine yàlla ji ibn Aamir daal di rey Shayba ci taxawaay Hamza du rey Waliid ci taxawaay Utba nag diggante ma Abu Ubayda ibn Aamir seen jaasi mu mu ñu ñu jàmm Abu Ubayda ibn Haaris mu daanu tànkam damm Sidina Ali yow Sidina Hamzatu ñoom jàkkali waayam ja xana ko indi dara ko fi yonent ñaari ñaari yow la yàlla wax na xarafaani ñu ne ñaar asmaan ñaari xulwaare lañu ñu gëm yàlla ñu weddi yàlla parce que moo xuloo nañu dara bi borom seere ñooy xuloo ci seen de ñu kuree ñu gëm yàlla di wax ne jëm ci yow la yàlla ñu weddi leen de wala si la ñu àgg sa bopp dinañu ko see am loolu yow nag yow ñu leen si yow ni ma la am ñun naa leen ci safara de yéefaree nag yow dawal na leen tàngaay yi safara ba ñu ne bare na ñëw di safara ñu soog mu dem na sotti ñu mboq lool ci kaw bi bopp si yow kaw bi bopp si yow xam ne mu ndoxam ñu gëdë ndoxam ñu gëm a ca jaar wala ñu sotti ci seen bopp ya ñu soog def na yéen ñu ci moom maa ngi guddoo ñu nga nekk ci biir seen de ñu ngeen sotti ndox mu tàng ma ci digg bopp. seen garab gi ci seen a yëpp daal di yee soppeeku ñu suuf rek wala gunóor la dee fi wàcc jare wala moom ñu naan leen maqaama ay bonde ñu naan ñu ci dëgg lañ di ñëw malaaka yi di leen dóor bonde lañ di ñëw ci bopp rek naaj bu la maawaadoo bépp bu ñu nam nañu ñu waxoon ñu ñu gënal naaj bi ci safara ñun xam nañu di jàppale mooy loo delloo leen di waaj a safara suñ gisee ci safara ba ñu ñaan di wàcc ci safara dañuy daw di daw di daw di daw di daw di daw di daw ba jege buntu safara defe naa daañu génn de su ko defee malaaka yi góor leen bon dañu mu raat ba ca kóob kóob ak safara ñu dawal ci jëm kaw ñu góoraat ba ñu jëli mu raat mu raat de noonu la ñuy lëkkale daa yi man. ñoo leen ko xaw ma seen asaawal a rek mu ko dem lakkale mos leen ko noonu la ñuy dañu lakk ci safara ngeen wedde yàlla ngeen weddi ko. inna mbaa naka yàlla ñu seen doon mu xarfee. allah ci nañu amoon gëm nañu waaye yow dañu jëf faale ati farata waaye maa ngi leen jamaat ñu tool taj ñu dana daw min tàtte ak suuf yàlla maa rek dañu yalante de bu tuddee mbugal fokk mu tudd yërmaane ndax xaw foog rek jaaw ñoom ñaar dañoo war a préférence ci xol xolab julit ñi tànn mu ragal boromam ñi tànn mu yaakaar ko bu tuddee mbugal nag ba nga ragal fokk mu tudd te yow itam ne nga yaakaar rek yàlla na dem ak takkal leen si ay si aljana asaawira lam min saa bu njëkk ci wurus wala wala wurus loolu wure ñoom ñooy aljana dañ leen di takkal takk moo tax ñu aaye ko fii ci àddina loolu bu ko takkoon ci àddina bu ko takkoon ci àllaaxira de wani baasum ko daay seen yaa ci aljana ay naa di la moo tax ñu aaroon ko wow doo jubaleel leen ci àdduna ci la fayu ñu jëm ca aji tee jëm ñoo xaw ñu wax yàlla leen jubal fii ci àdduna ñu wax baat bu tee la baat ba moo di la laa ilaaha illallah muhammadu rasulullah wow doo jubaleel la leen ilaa salaatul hamiid jëm ci yoon wa ñu sant mu jëm de yàlla xawal na leen yoon wa xam ne moom la ñuy sant de mooy diine yàlla inna la si naka ñaane kafaroo wet nañu wala si doon ba ñuy tàgguñ ñu naan tàgguñ laay ñëw yàlla ji masjidi ak wala jàkka yi ah ah, ah ñu ngi normal ñu nga xam ne dañoo wér di yàlla tey tey ñu ngi wëñ masjidi haram bi ah ñu ngi Makka léegi jàkka ji nga ne jaar naa def nañ ko mu di waaye naa si ñeen ñi jàkka ji nga ne man yàlla maa leen ko defal muy seen. jaamu waaye boo xam ne fa ngeen di jaamoo ñu seen borom sawaawon aji yemoora alaaki fu aji sox si ci moom wal baadi aji rot te gan ñoo ci yem makka benn buur na fu moom te benn buur du moom mukk gan gu fa asi tey moo fay fal ma atte réew ma ko na manamu ci ñuni ci makka biil haadin ci ci néeg ba biil haadin ci jàng ci sabab si tooñ yo fekk nu maxal ko mu na sabin mbugal aji mbugal aji te képp ku fa yàlla dana la mosal mbugal mu mbugal mu métti de te mooy safara de wax pour jàngat ak ba waanaa ba nu wàccee ba waanaa ba nu digalee ñu Ibrahima ñëwee Ibrahima makaama bañ ci barabam ne bëre jàngatal ba nga xamee ne yàlla wàcce na yonent yàlla Ibrahima ca Makka defal ko ko muy këram wala digalal na ko barab ba nga xam ne. fa la kaaba fa la fa la fa lañ ko xam na fa tabax kaaba ga kaaba bi malaaka yee ko jëkk a tabax yi roji ci demb la ñu ak loolu ba nga xamee ne bàyyi tuufaan ñëw na ci jamono yonent yàlla nooy nag ñu yëkkati ko malaaka yi yëkkati kaaba ga mu dem sa ci bay ji maamoor suuf si amatut kaaba ba ci jamono yonent yàlla Ibrahima yonent yàlla Ibrahima nag boromam digal ko ne ko na dem ko wax ga de ci fay gàddaay Ibrahima jógee Iraq ñëw Palestine ak ba nga xamee ne buur dogal woon na ko bëgg a jël jabaram saarata te yàlla wattu saarata ca buur ba te buur ba mujj indi may ko saarata jëbeer ba mooy Haajara saarata nag ñëw na yonent yàlla Ibrahima jëkkëram boobaa tey ñu ngi sëy daamuñ doom jëbeer bi jox naa la di nga def ko taara nga am ci doom mu taara woo ko jitte Ismaël jëf ju baax yàlla daf koy fay ci àdduna alaaxira yëpp yàlla daal ni ko may moom itam mu far ëmb gannaaw mu amoon juróom-ñeent ci at ak juróom-ñeent itam mos moom itam Isaaka wasin ko mooy Isaaka fekk na Ismaayil doomi Jibeer bi moo ko mag moo ko ëpp doole bu ñuy fo rek Ismaayil dóor Isaaka léegi nag mer ñun ci yonent yàlla Ibrahima ne ko lii xajoo ma ko ñi nga xam ne sama jaam rek la woon dama mu góor dama doon bët bi seetlu daal xajoo ma ko ñi daal dootuma dëkk ak moom yonent yàlla Ibrahima daal di Hajara ak Ismaila ñëw ba fi nga xam ne fi la mu wàcc leen fa dem ñu di saam Hajara amee doomam ci la ko yàlla bënn leen te nag Zamzam boobu gannaaw boo xamee ne doomu xaw naa dee ak ba mu dox diggante si wàllu mara juróom-ñaari yoon moo tax tey ko aje ci Makka dox ko ba sam-sam bënnee ay nit ñëw seen ay picc yi léew foofu ñu ne picc yi day ndox lañ te picc yi day mësuñ fi xam ndox ñu ñëw rek fekk jigéen yeeg ab ci anam def ñu ne ko ndax bëgg lay dëkkaloo mu ne waaw. te du ngeen am xaq ci teen bi jurhum ñu ñëw dëkkal moom nag ba Ismaayila màgg gannaaw ba yàlla yabal di yonent yàlla Ibrahima ne ko na dem seeti Ismaayil te digal na ko moom Ismaayil nañ ko wax Kaaba gi rek ñu ñëw Ismaayila dem rëbbi wàcc jabaram ci kër ga yonent yàlla Ibrahima ak asalaamaaleykum mbaa yéen ci jàmm ñu ne ñu génne ko ci jàmm ak ngeen doxal yi ci lu ngeen nag ko mu ne am sa ne góor gi la ne ko maa ngi dem ñëwee nañu ma ko sa fàtte ko bëri guddi mu ne ko man day am góor bu bëri solo lu ne laaj na ma ko na ne ma yóbbal na ma baax ci yow na ne sa jëma guddi ne bi dafa dëng nan ko man ko soppali mu ne ko góor gi xamuloo ko mu ne déedéet mu ne ko sama baay la jëma guddi ne bu dëng nga xamuloo ko mu ne déedéet mu ne ko yow la daf ne naa la fase fase naa la takk beneen jabar nag yooyu moom baaxoo te de te beneen yoon Ibrahima dellu si. waaw maa ngi fi nuyoo salaamaaleykum. ndax ndax daal di ñu ñëw e ne góor ñi de affaire yi ba jëfet wàccal wàccal mu ne de lu ma wàcc saara fi ma ne ko may mu ne sax fa mu ne naka ngeen def mu ne ko ñu ngi jàmm ñu jeexal dara yàqu di jeex taw di jeex ñu ngi teew alhamdulilah léegal sama jëkkër dafa génnoon waaye léegi mu wàcc daal di ñëw ndox bi raxasal ñu ne ko yàlla Ibrahima tànk ni ñu ko ah man du ma wàcc maa dem na ko joxagul ne ko wéyal na ko na ko na ko na ko na ko rokkab bu baax na ko saxal ba mu des dem wax ko mu ne ko sama baay la dafa ne naa la jàpp gannaaw ba nag la yonent yàlla Ibrahima dellu si nag fekk si Ismaïla booba Hajara dee na ne ko sama borom daf maa digal dinaa tabax néegam bi ndax danga ma dimbale mu ne ko waaw yonent yàlla Ibrahima ne yow yàlla yaa may tabax loolu néeg boo xam ne xamu fu fu fuy barabam yàlla daal di aw niir ñu ñëw tolloog ni kaaba gi taw ko ba mu tooy tawee suuf ko Ibrahima gas rek gis fond mu ne tabax bu njëkk ba ko mara mu ne ma ba mu ba jot benn bëj bëgg ko dindi rek suuf si yëngatu ba adduna bëgg

ñeent sama ci kanam ñu taay ñu ne ñeent mooy na suñ julli wala kay tabax kaaba bi te laabal ko ci lépp loo xam ne la di ko tërëm jege ñu ne lu tax mu di ko sant na laabal kaaba bi ci tërëm booba tërëm amul ndax kaaba dafa booba amul ñu ne ah ba nga xamee ne waaw kaaba bi yëkkati nañ ko itam barab ba mu nekkoon. dañ ko doon def ay këram di ko di ko jaamu këram la ko yàlla na laa ba nekk ba ci ñoom ñu ne yooyu yëpp xam si nit la ci lu mën am daal yàlla ngay wax yonent yàlla Ibrahima ne ko laa ba la nekk bi ñaar wërsëg yi ak jubbu kër yi jubbu kër mooy dafay taxaw si ko di si jóor wa asin hotel dinaa fi ci ñu di ci xaj taxawal ñëpp ne leen nañ ñëwaat ñu Ibrahima daal di jub na ca tabax bi ma xamoon Ibrahima daj woo ca la doon taxaw di moo koy jot ji gis ni la koy dooroon Mikaayil mooy jox Ismaayil Ismaayil jox yonent yàlla Ibrahima Ibrahima tabax te tabax ba mat gis nga ma xama Ibrahima aw daj la woo xam ne ñetti xasab rek la guddee te tabax bu gudd boobu ci Ibrahima taxaw ba tabax ko bu tabaxaa ba jot a dugg ba jot a dugg tabax bi rek dañuy yëkkeeku ba mu jot ka ba mu dem ba mu jot tabax ba danañ ko sottal noonu ba mu sottalee tabax ba nag yàlla na ko xaw a ñu ñu ne leen ñëwaat sama ñëw fii. mu ne sama baab moom mën a jëriñ ci xoo àddina si yëpp ak ñi nga xam ne jubboowuñ fu ma leen di wooye yàlla ne ko xooteel xoote rek la war jotal bi man yàlla man la war Ibrahima ko maqaamu Ibrahima teg ko ci kaw jamono ak yëpp béy mooy que ñu réew woowu ca gannaaw safara taxaw ne eh, yéen ñi yéen ñi yéen ci labbay kay bàyyi ko ci wàll bu nekk ci ndiggi góor ku ko aji Makka ba xaar na yem ñëpp xëy na naa ko labbayka labbayka labbayk ku xëy woon yoon mooy ku aji benn yoon ku xëy woon yoon aji ñaari yoon ku xëy yu bëri da nga da nga aji day la ku xëy wutoon itam loo ko waaj waaj loo ko bëgg bëgg loo ko doog doog doog mën a aji Makka moom la koy rew ak suñu wooteem suñu àll bi ñu ngi laaj ci caaj ba mu woote rek ñëpp wëru ko labbayk allahumma labbayk labbayk googu la ñu fàttali ba tey moo tax bu waar fa rek daal di ko waxaat wëru woon naa la ba Ibrahima woote maa ngi wëru yeneen yoonu ñaare ko ko danañ dikkal de ñu bu xoo bu ñu xoolal yaa ngi leen gërëm ñu gis ñoom gërëm ñu xoolal ñu gis ñu faj ñu gis ñu ñëpp te yoon ñu xam ne te mu gaa incha allah. kooku taal la moom gërëm si yàlla Ibrahima la yàlla tabax loo Kaaba la moo ko tabax moo woote am na ñu wax ne yonent lañ digal mu woote waa suñu digal yow yonent ne dinaa suñu village bi caaj yonent yàlla moom nag tam fan soñ ko moo ñu caaj de. waaw booba ba ñu ci kër jaaral nit ñi ñuy miir waa Fatou Seye ak nit ñi di gaaw a lépp gërëm di di moom yaa ci nekk dana gis ci ñu fa jëm ñu ci waa am ci ñu ko ci kaw loolu. gis nga Ibrahima ba mu tabaxee Kaaba gi ba mat nag suñ doon tabaxee xeer yi doon rot ci fa rot ak ban bi nga xam ne daf ko doon ruus. yàlla ne ko xamal ñu ne yëpp nga tafaare ko jaar ci Ibrahima tudd waaw ba si kat sama xar saaba ga fan ko mu tafaaroo jaar ci boo xam ne xeeru rëy daloon na fa waaw ñu ko tabax jumaa boo xam ne ndaw dal na fa parce que dañ ko tabax jaare boo xam ne yenn rompo dal na fa bokk ca suuf si taawa ga rek bu doon ab jiwu bu ñu ci ci ba ji jot teg ko ci àll su ma mu julli ba sax laa bu dëgg dañ ko julli koo xam ne la lu bokk ca Kaaba ga dalu ko woon kenn mën na mu si dëkk jël lu ba waaye dana jiyaat jàkka yëpp jàkka jooju mooy seen safar ñu ñu ñëwaat ci nag yëpp kadoo gis nañu que maanaam ay njëriñ la mu ñëwaat leen rek li ci gis nag Makka nag danañ ko gis ay njëriñ yoo xam ne ñoom la ñu ñëwaat njëriñ la yaara lool muy yaxantu muy jindi yaara xeer képp ku dem Makka danga daje sa dem de borom xam-xam dana gisee borom xam-xam la yaxantukat dana gisee yaxantukat ya politique kat dana tasee politique kat ya lépp lu ñu di doxal rek boo demee Makka danga ko danga ko fat nawle de gise boobu ñuy gise nag mooy njëriñal mooy njëriñal xaj daañu gisoo ñoom ñëpp so so seen de seen loo xam ne ñu doxale seen ji esuro tey ci ji gis na daal yàlla yaa yaa ngi ci kon maa loolu maa fi ñu xam de te daan ci lu tudd yàlla ci suuf yoo xam ne ñu xam lañ jaraal ne mooy ci fan yi ko bëgg wala mooy jëfëb arafa ak jëfëb jëfëb tabaski ci boppam jëfëb mu jëf jëfi seede ay am mahrumaatin la wax ni wax maa doo daatin ca baqara maa doo daatin mooy jëfëb tabaski ak ñaari jëfe ko topp jëfëb tabaski ak ñaari jëfe ko topp maxloo maatin nag mooy ñetti bés yi topp ci tabaski kon nag ñaari bés yi ñoom maxloom lañ maxloom lañ bés bi bés bu maxloom la du maxloom bésub ñaanteel ba maxloom la waaye du maxloom de suñ jërëm maal waaye ci saaba yi moom ku ci fan taw si yëpp maalum lañ wala ñu ko dara ci arafa moo tax dabbari bi ci tasreti ci maliki gannaaw bu ñu jullee ci tusubaar day tàmbali da ca suba si dana fi ñaan delloo ñooy kooku mooy ay am madodaat ñu yàlla wax na rasulullah ba ay madodaat amma saafe ñoom ca bésal arafa dañuy tàmbalee kabar yooyu ñu suñ jéer araam arafa xawum te mu war a soxalee ñun dañoo seeraan daal mu bay di seetlu ñu sant yàlla ci xéewal bi ñu leen jox pour di leen leen di kër yi muy jëlee ñu ak naan yi ak gàtt yi nga xam ne moom la ñuy bët ci dëkk Tabaski ci muy nekk seeni addu ku loo nekk leen ñu ne ay xaar yi ku lay sama addu nag nan ca la duñ soppale ci suñu yéer am nañu ko waral waaw te moo leer leer albaay ba aji wañto albasira ka aji ñàkk soo rayee sa naat ñu daal bëgg nañ nga def ci yëf yëf bëgg nañ nga lekk ci yow ci sa bopp bëgg nañ nga may ci bëgg nañ nga tabax ci mooy yàq googu topp nañu jindi dafa soom ay ci guddi ci seen de ñu rajo seen amaat ñu ba noppi nag ñu daal di war seen kawar sangu ci bis ko yëpp ñu ngi ko léegi seen weer sànni jamra jamra Aqaba ji moo jëkk ga ñu loj gannaaw ga waaw ñu war ba noppi def tawaafu ji xaalati de wala yow boo nañ matal góoram ay université danañ matal misar kuy misar at ñu na nga matal la nga misar yóbbu at ñu ku masar ku man ku misar tabaski na na matoon di sa rab dafa tabaski rek di dafa tabaski rek ñett boo nañu war ci bay ci génne war a fekk ba daal ñu jot ñu defee ñu ci doon ba noppi fan ñu jamra loj waaw nañu wër kaaba ga de tawaafu di sa bati boobu mooy ponk bi nga xam ne waa ponk la ci xaj ak ñeent ponk la armal ak dox diggante Safa ak Marwa ak taxaw Arafa ak tawaafu isaabati tawaafu isaabati mooy wut yooyu la ci gis a tëral bu topp gën na soit yàlla bu dem ko def farata rek la waaye du ponk ponk yi ñun mooy ñi nga xam ne bu ci yàqu daal ak jëmoom dara dara mënu ko jaay. wan naa suñ ko màggal mu xurmaat laay xëy na yàlla woowu moom xaaral mu gën la wàññi ko rek koo xam ne màggaloo wu yàlla jërë te sax dina jël lépp loo xam ne yoon tere ñu kot ci turam woowu moom xaaral moo gën la wàññi ko rek dafa ñu borom de. na lakkum ñu leen danaa mu ñu seen dagan na nag ngeen loj ci di kër ya lekk ca ci laa ma na jàng aleykum ci yéen ak lu ma la nga xam ne xaraamaloon nañ koy te aaya xurrimat aleykumul maytatu te saaru maay yooyu moom kenn du ko lekk rek te kañ boo teel leen rijisa xërëm rijisa sobe mi ne la saani ci daal mooy de na ngeen wattandiku waaw sobe ki nga xam ne mooy jaamu xërëm de bu leen jaamu xërëm wa kañ boo teel leen xawle soo di waxi nar de na ngeen waxi nar mooy sakkal yàlla bokkaale na ngeen bokkaale wattandiku wépp nar te nar sakkal yàlla bokkaale mooy bopp naar <clears throat> mooy bopp sóor lépp loo xam ne du dëgg soog ca soog ca topp mu ne faa ah, mbir ngeen di way jàng way ne yàqu jëm ci biir bi laay ñeer <clears throat> nga xam ne mooy seen borom moo leen sàkk rek xayra musrikiina mbir moom du ngeen way bokkaale bi ak moom ba ma nit ku bokkaale na mu billaay ak yàlla fa kaanamaa xarra daanaka rot na mu mina samaay tukke ci fa taxata foo te fëkk ko bayrun janaaw aw taw yi garab bi moom réew ngelaw de bi makaayin ci barab fay seen bu dee ngi tooy ku sàkkal yàlla bokkaale xam nga na melam ñàkk a ngi mel ni ku yëkkati bay ca asamaan ñu wacc ci diggante bi fëkk ko lekk ko dee na la mel borom du mucc mukk mukk mukk benn ñu ray ko ci jaasi sa reexatu nañ def aw jaari ñu ngi saamaaganda doom ya wala mu dund ba aw fanam jeex mu dee bu dee lu mën a am rek safaa nekk ci kanamam de zalika loolu de zalika mbir mu naka noonu la de bu man ñu azim ku màggal noonu taayira laaye mandarga yi dine yàlla fay naa naka moom al màggalam ñu taqal ko loolu ay nekk la ñu ragal yàlla xol de mandarga yi dine yàlla na màggal ko ñu ci xurum yàlla ji ak sax bépp jullit

yaa ngi koy laje seen néeg ba de mooy fa Marwa su fekkee Makka nga bëgg a laje wala ñu naan de Kaaba ba kulli ummatin ak ñaaka la ñaan wépp xeet man fa kan jaamu waaye bu ñuy jaamu yàlla de xeet gu nekk yàlla sàkkal na leen sariyaat boo xam ne moom lañ koy jaamoo yes koro ñun nañu tudd bismillah tudd yàlla arama fa xam ci la mu war sëggaleen ñun day na ci la nga xam ci la moom bàyyi bi di sëggaleen te ilaahukum yàlla seen ilaahum yàlla la waaye duñ jur jaan fa aslimoo jébbalu leen la ñaan ko de wa bashiri bégalal almuxbitiina way topp ñu yàlla almuxbitiina way toroxlu ñu yàlla de yàlla benn def fa moom dina yàlla tolloo ci suñu dese wa kaa in benn nit ay alal am lay du ñu may yeete laa ñaar leen way yeete ñoom saalim ak way tooñ lañu ma xasa sax la leen kon na siru leen waaye gën na ci man de kul waxa yaa yaa naa fi yéen makka ñu ne ma ana naka man na siru aji waade laa ñu jëli ci ci waade la ko ñaan leen fa ne seen ñaan amano gëm ñu amano tan jëf saale an farata ak naafre na ya sunu mu aji ci nam mu ngi way na la ko sunu laay dañu la gaa daw jëriñ la wala jëriñ de maa fa naan xam nga la sori kooku lu ko waxal ci kirim jaal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mas a jàng alquran ci kanam xéefar yëpp te loolu ay mu jàng saar na ñu ci kanam ba mu mu ci jóot ba mu ci jóotee ñoom ñëpp ci jóot nañ ba mooy waaye ñoom mu xeex ne man day sama dugub dama fekk kaw mucc raad na waaye ci biir suuf suuf teg teg ci jërëm su fekkee fi nga xamal ne dañuy def lu wér ñu ne booba yonent ba muy jàng saar wa ba tudd keneen ya dafa wax ne sang yooyu li ci laataaroon ko lay digal sang yu kaw ma ne sa ko yaakaar de waaw leen dégloo ba ba yonent bi jotee ñoom ñëpp ñu ci jot waaye wax jooju ci sopp la di dëgg ibnul kuldi yi moo ko sos te tànkat la boo xam ne ulama yëpp daje nañ ci ne tànkat la te isa bi mënul am ndax yonent su ma fekkee mën naa jàng alquran iblis wala ci lu ci bokkul dem jàng ko ñu defe ne alquran la su fekkee loolu mënoon naa am dañu naan rek kon ñu dootuñu gëm dara ci alquran ndax kon mën naa am dana yoon kon laay yi ñu jàpp sukkandiku ci itam mën naa am iblis da ko sànni ci lan la ñu yoroon xam nga kon dootuñu am kóolute ci sariyaat bi te loolu mënul am Iblis wax la yeneen bi lu yëgut kooku mënul am ñun ñi nga xam ne ay jullit ci kese rek lañ Iblis mënuñoo wax la loo xam ne xamuñu ko bañ defee na ndax ci alquran la bokk saka yeneen bi nga xam ne moo gën a mat mboolem bi léegi mu wax ko ci wàllu boppam itam mënul nekk ndax yàlla wax ne wala taxawal alayna ba'dal aqaawi laa xam naa ngi jigéen ñi ma la xasee naa ngi wasiina su waxaloon yàlla benn baax rek na yàlla ko wax yàlla waxu ko yàlla dana ko jàpp ak kattanam alal ko yonent bi sallallahu wa sallam dana ma qul maa yakuunu lii an ubaddila min tilqaa'i nafsii tax na de adi bi la xam ne borom jalal bi ñu def ci ci kiréem te jooma mu tax ñu nga ne ñoo ko sosoon te ne ay kankat rek lañ yoo xam ne ko faraatoo jëlee ko ci noonu ci yëwal li am mooy yàlla li ñu ñett ni aadaan ci bépp yonent yonent jàng na alquran ci am na ñu ko gëm am na ñu ci bañ ko gëm saytaane ci kuréel leen jàng yonent bi bu yàlla soobee nga ne jub dana dindi ci soose ci seen xol dara ñooy kaatee fam ñu gëm yàlla moom la yàlla wax naa wa ma arsalnaa fi ma yëndi ñu ñu la soobee ñu koy yëndi wala nag ñu ngi jàng ab yonent ilaahi fa tama naa nga bu na mu alxaasa ni saytaane saytaane fi mu yëndi ci jàngam yonent bu yàlla mas a yónni su jàngee téeréem saytaane dana sikk la dana sànni sikk sa xol koy déglu dañ bañ koo gëm fayam saxu laal dana yàq yàlla maa yokk dana si yàlla fasoo ci jaamam njub dana ji le ci biir defoon ci xolam mu sax la ayaat yi ay kaat yorom de wala ayaat di xam na mu ak maa di xëy na mu ci def yorom de daa di jawaan na def maa ngi dana sànni ko seetaanu seetaani fitna mu di nattu a daa dina dinaa ji man dama ñaan amoon dama ngi rafetlu ak ngir ci yoon walaayee saa la dem ci ne dina ñaan ko faral di ngi rek di ci ñu ngi ci alquran rek te far nag moom dafay ci alquran faaw ata ta yow te di leen saa di def ci baax tam ci def rek aw yaa yow ñu di leen asa yow men bu gëlal de ak ni mu ay jëmel de tamo jëf badal de al mu ko góor yow may di jëf tara ci teñ ko yàlla ila ñu nak la ñaan yàlla de tay fu ñu ñu fay ci duggu ci suuf fu ne di wax ne maay góor fa nga maay góor fa nga waaye keroog tey jëm yàlla moom yàlla rek doon buur rek ne ni ma nii muutu aliyam kuy buur tey kenn du tontu de boo déggee tontu de nga dégg baax bu ne kot bu tontu boppam na ni laay waaye ñu xaar nguur gi ñaan na yàlla rek rek kenn sa coow ko moom waxtu mu ne mu àtte bàyyi na mu digg defee wala dina ñaan amoon gëm nañu am na dañ koy faral di faral di naan di janaat naa ni waaye nag lañ ko fa wala walaay dañu ne la gars yi doomu aadama ci ñoom asaabu mu wër mooy ñu di borom doole leen de wala si la ñaanee xaajaro gàddaa nañu ci tamit laaj ci diine yàlla ma ko si loo topp sa yit loo leen aw maa sama itam ñu dee ci seen lal te xanaa mu laaw gën a wërsëgal leen yàlla sama wërsëg affaire mu di aji rafet mooy aljana de wala laa yàlla loolu moom xaaru laa fekk mooy aji gën mooy wërsëgal ñële te ku la nam wala ay ganam xafe yan makkalam xarfuwaay yàlla na ko gëm ñu gëdal ko mooy aljana wala laa yàlla laa ni mu aji xam na mu seen xëy na alima ji garam garam de dalika loolu ñu solo la waman haqa saalika bi mun a kañu solo la de waman haqa ba ko bugal namu ñu si naa ko ba te tam ya nekk lees ñu ci moom sama mbokk nga tax sañu xale ci moom wa yàlla dana ko dana ko yàlla dana ko dimbale rek day soo naw laa walaay dana dimbale ko yàlla rek koo xam nag ne xeefal tooñ na la nga xëy na nga xam ne dara nekk ci rek yàlla dana la dimbale rek ñu laa ko yàlla naa foo naa jëlee la mu dimbale afur naa ji baal amul benn bàkkaar de daal di ko leen dimbal jaama laa ci naka yàlla yooyu dina mu xarfe leen bind dina naa ci bëgg wala dina mu xarfe naa ba tey te yéen a ci laa yëg waaw laa am sa yàlla sa noon ak dégg la muy ñaan la mu dalika loolu la ndimbal dana laaj nag yàlla woo ma la moom daa ji sax de waana maa ko doon naka la dangeen jaamu ko a doon yóbbu yàlla te mooy këram woo moom albaas bi moom daa ji dañ de waana laaj naka yàlla woo moom alhamdu moom daa ji tawee ñu de woo alkam bi moom daa ji mage de alam tara ndax xamula ana laa naka yàlla am sala wàcce mu ne sama ci ci asamaan maanaam taw xanaa ñu ko yàlla di wàcce taw mu bàyyi ko ci wàllu asamaan parce que loolu te mu xara tan daa ji ne tax janta ci bi saxee waaw bëccëg bi dina la naka yàlla parce que bu naaj bi yéen lamu abdoulaye ak am di jaamam naka bi ci de dafa na ko maa sama ci asamaan juróom yaar wa maa fi lar bi ala nekk ci suuf juróom yaar waaye la naka yàlla dafa moom xam ni moom yaa ci baylu wala ci ay jaamam alhamdulilah moom rek ñu sant de alam tara la xamula am na laa naka yàlla saxar tàggat na mu la wal fulka gaale te ñu danañu daw fi bàyyi ci jël yaa ngi ci gërëm ko dana mu jàpp sama sama yàlla te asamaan bi ñaamu lenn kenn am taxawaar mu ngi daan waay alal la ko ci kaw suuf rek laa dégg laa ci caabaam rek caabaam laa ci caabaam rek asamaan daan ci kaw suuf mukk lu may def ci ba yàlla soobee nag dina laa nag yàlla dara wax naa ne la mu gën a si bind rek ma yéeram la mu dem de woo moom ala ci mooy buur bi nga xam ne ayaatul dundal la mu leen te nekkul yoon am dara ñu ngi métikum topp dana mu rey leen fa jox ak ay dikkeen ma ngi métikum topp dana mu lekk leen fa dekk dina leen fa nag nit da ko xor da ko xor nga jaar ak boromam la de kulli ummatin aji nekk la ñaan yëpp xeet jaam naa def na man sakkan jaam waaye de yàlla xeet wu nekk sakkan na leen ay jaam waaye yawut jox na leen tawreet nasara jox na leen injiil injiil jox na leen alxuraan um ñoom naa si ko way jëlee dañ ko de walaay naa si naka bu ñu xëccoo la mën ci nit ñi de wala bu ñu xëccoo yow yàlla moo la yoonalal li nga xam ne moom la alxuraan tural amul werante te dañ daañu ñëw di laaj yéen naa leen yéen la yéen lay waar yéen yéen di bañ leen di yàlla di te ngeen di daggee seen loxo ngeen di ko lekk daggee boobu daggee baax rek la waaye yéen seen sariyaatu moo leen maa ngi leen rendi ci turu yàlla loola xaraam lépp lu ngeen rendi ci turu yàlla xaraam maa lekk bu leen leen bu leen leen déglu wala woote bi yàlla mu jógee ci diine borom ko dina kana kay wala ala hudan ajina ci def ci yoon ajina ci ci diine mu faqin bi jaay ci de way jaadalo ko lam ko doon yow ko ko la xala yàlla la mu ay xam ma sama na da ngeen def ko rek ko leen ko fay loolu ci def xale la daa yàlla yàq mu gën a mu àtte bay na ko mu diggante fee dama koy am diggante yàlla de di ma kuntum te la ngeen nekkoon ndax dañu ko doon ko ci suuna ci ngeen diine de alam taalam ndax xamula ana mbaa ana ka yàlla yàlla mu gën a mu xam man sama yàlla ci asamaan wala nekk suuf xam la ne yàlla xam na lépp lu ne ci asamaan suuf ina gaali kana ka loolu de ina gaali kana ka loolu de yàlla na ay jafe na ma ala ci yàlla de te lépp yàlla xam na ko te yéen na ko te bind na ko ci gawin ma foose waaye am yoon danañ jaamu ñoom defaree ñu doon laaj la yàlla maanaam ñu ne si lu mu wàccewul bii ci mosul tànnaaw laaj de ñu lay jaamu xëyam waaye amuñ ca wenn laaj de ba maa lay sagaw den ña dem bi jumel mu xam-xam ba maa lay saali ñoo den ña way sooñ na bay jaamu lu yàlla ñu ne si na aji teral mbugal de way saa tuddee dem jàngal na aleen ci ñoom ayat maa alquran sunu bay naa bind mu ngi way jib taarifu dafa a ñu jóge la dina ca xarkanam ñaaña kabaro wet nañu ak mun kare ci yéen bëre ci yéen tëbi jàng alxuraan boo xoolee fay ci seen xarkanam di wax de yaakaar na danañu jege sax yàq loolu di toll ñu def leen ci ñaaña yàlla loolu dañuy jàng allez jéem ayat na alxuraan suñu a ñëw sax toll di jàng alxuraan ñu bañ alxuraan loolu xaraafaw na biikum asaratuma a bon ñun daal di gëm ci loolu leen di tere ñu lu gën a ci ñun daal di alxuraan yi ñuy jàng yéen di ko dégg mu di leen naqari ma wax leen nag lu ko gën a naqari ci yéen te dina leen dal te ngeen demoon dara naaru mooy safara de da ngeen dem safara fa loolu gën a métti waaw daa daa daa na seere de ñaan ko wala ci ko fi ko ban na Allah ci ngado ay ngeen safara de ya ayyuha naasu yéen nañ Makka mooy lay dëkk yi su su ko waxee ñëpp tabbi nañ ca wuri ba defar na masalul léeb de yàlla ngeen di léebal sañoo dégg leen lewal ci léegi ngeen dégg léegi yàlla léeb inna lasina naka ñaaña tagoona da ngeen jaamu leen min dooni laay lu yàlla lam yaxluqu biñ digir du baaram lañ de yàlla ngi leen di léebal mboolem tey ni ci àddina yëpp ak képp kuy woote yàlla suñ dajee mënuñoo bind wenn weñ de weñ ci gën a tudd bind yëf yàlla yi wala lañ tam ñu ne booloo nañu la ci moom de feeboon ak yàlla yëpp daje sàkkal ma wenn weñ rek weñ yëpp moom ndem rek ci la leen su baabu weñ laqatuñu ba nuyu seen bopp de te yàlla ñu ci nekk gëttal ñu ko gëttal waaw duñ ko gëttal wàllu ku nekk wéy nga dal ca wéy nga dal ci kawam sax moom yàlla ji mënu mu leen a dàq kooku war naa doy yàlla koo xam ne mën na bàq sax wéy wéy nga dal ci kawam sax mënu koo dàq kooku ko yaakaar foo jëm waaw boo dawa dina paani waa ji jaamu jawan ma doogoo kuñ jaamu ka rek kuñ jaamu këram de moo dawa di ko xaram toll ci ci jaamu yàlla ne yàlla la kooku de kenn gënu ko néew doole waaye suñu jaamu itam yàlla yoo xam ne dañuy dal ci kawam sax mënu ko laal ñun soo de maa xabaroo màggal ñu laa laa ko xam ni dëgg dëgg màggalam de ku lu tawaree loolu ñu di ko def maramam yàlla màggaluñ yàlla de de ina laa naka la xaw ñu naa ñu defar lemu asib naa ñu nag lemu ci de allahu yàlla estati dana mu tànn ñeen malaayka ci yi rasulana yéen am na fii malaayka ay yonent mooy ak ñi taayee wa min an-naasi ak ci nit ñi ay yonent bàyyi na ci nit ñi ay yonent mooy Ibrahima ak Muhammad inna laa na teel a sonn waaye ñu dégg la mu teel a ba ci maa ji xam la mu teel jëfe yàlla mu dama xam ma bàyyi naa ay ñun dana ci dëkk la mu teel maa xam loolu am na ci dëkk naa teel te yàlla moom xam na lépp ñu dëkkal lu mujj waaw dara dara yoonu bëre lépp nag dana dellu ci yàlla de moom mu rek la bëre yaa ayyuhaa llaziina aamanu irkaan war ci jël leer war ci jël dangeen irkaan war boole war ci jël dangeen ci jël irkaan war ci jël julli leen ay yéen julli ñi dee leen julli gis na yaari ndax julli julli rek moo jagoor koor ci jël yow dinañ julli waaye dañuy ci jël rek amuñu rekoor yéen nag na ngeen rekoor te ci jël waa bu doo yéesa leen a jaamu rabbakum borom seen na ngeen jaamu yàlla bu leen ko sàkkal bakale waxan loo def leen alxayra nii laalakum boole ngeen taxe na ngeen di jaamu seen borom te na ngeen di julli te na ngeen yéesal yàlla bu leen ko sàkkal bakale xeeti naafile yi nag lépp lu ngeen ci mën rek waaye def leen ko rek kooku mooy ragal yàlla rek ragal yàlla mooy lépp loo ragal ne soo ko defut yàlla bugal la jël nga def ko lépp loo yaakaar ne soo ko defee yàlla bugal la jël nga bàyyi nga bàyyi ko loolu mooy ragal yàlla moo tax ba naafile yi dugg ci ndax naafile soo ko bàyyee duñ la bugal waaw soo ko defee nag dinañ la yoon moo tax na ngeen wéetal yàlla jaamu looloo leen war di julli julli moom farata def leen farata yi naata yi nag def de jox ko ak jikko baax yi waaw ganale gan waaw yonent ne sallallahu alayhi wa sallam képp ku fa am bu mu xees fas sagar ba tabax ko miskini yàlla dana la wax ci pagaay aljana de képp ku xaro tiit waaw tabax ko koo dafa tiit waaw aljana dana wax ñaan ko de képp ku rek koo dafa lakk ak yàlla dana la jox aljana rek dëkk boo xam ne gan fanaan na fa fande ñoom ñu fanaan rek dañ leen ci jàmm yàlla rek laala bu mboolem tuuf leen ngeen taxe rek wa jaay ñu jaar leen ci laay jaar la ak jaar ñu dëgg dëgg jaar ñu leen jaar dëgg dëgg jaar mooy def sa kenn kattan moom sabaatul tànn na mu leen wa ma jaar da dem mu alaykum ci yéen ci diine ci diine ñaara ñu aw ci de yàlla leen tànn te te bu leen lenn ci ci diine te soo war boo amul ndox wala nga lott ci sañ ngaa ci julli ñaan ci waxta soo sañ nga ko wàññi julli ba sañ ngaa ci soo xiifee sañ ngaa lekk medd ci koor soo xaftee mbaa nga nekk ci sañ ngaa bañ a war fay ko gannaaw la yàlla tegu leen ci ci juróom bi rek li nga ta adikum taqale na jine bàyyi jàppale jigéen ñooñu nga xam ne gan ci nekk ci mooy jigéen yonent Yàlla Ibrahima woo sama ko tudde na ma yàlla musu ñaari jigéen xam ngeen lépp yonent Yàlla Ibrahima moo tudde xeetu yonent ko laale leen ay jullit wa fi asaat ci alquran alquran tudde na leen ay jullit na dina la islam yekko na ngeen nekk parce que yonent Yàlla Muhammad tay la dañu seede aleykum war leen ci tënkal Yàlla wa ta ko nekk leen su fa daal yow seede na ci war ñu rek bu tënkal Yàlla Yàlla yonent bu mu taxawal yonent Yàlla moom la ñu jëkkëri daal ndax gafaram nga mu ne gafar naa mu nekk ci ñoom ndax yéen a ngi tudd jotoon nañu ne yéen a ko dëgg maa jàllale leen si wala mu jëriñ yéen ñoom en fait seede ñoom ñoo xeeti yéen yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xeeti yéen ñoo seede ne ñoom ñoom jotoon na de ñu dem ñoo weddi yéen a ngi tudd nag sallallahu alayhi wa sallam yàlla laaj ko ndax sa xeeti mën nañ seede mu ne sama xeet mën nañ seede te loolu leen loolu wax ñu mën a seede yéen a ngi tudd ñu yàlla rek saa moo taxaw leen salaata julli juróom waaw doo tamit joxe zakat afaka waa ko fi moo jafandiko leen bilaay ci yàlla oo moom yàlla mawlaakum mooy aji dimbali seen mawlaakum mooy aji dimbali seen fa ne ma baax na al mawlaa borom ba moom yàlla la fa ne ma baax na al dimbali seen moom yàlla rek